hadith yi ni deugal nañ tawassul amna nan lañ koy defé ci yàlla nan lañ koy defé ci yenen tubi ba yenen tubi du dund ak bam fi jógee légui tawassul ci keneen ku du ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko xamné dañoo njort ci mom mbax lu wér la wala wérut amna ay dalil wala amul dalil ku ko gëm amna ay dalil dinañ la ko indil ku ko weddi ci tam am nga plein droit weddi ko waye ala kulli halin xaalin no weddi saxal bi wax leen yéen ñëpp alhamdulillah yéen ñëpp bay neena yo wax rabbil alamin ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلتني يعني نسي برتشان دانان فيضو نيوغي لين نيو دي لين دو كيل تي ويرو تدويني نك مي ويرو غانك ينن تبي صلى الله عليه وسلم دي نيواتا جين تي بين فيديو بو حمانتني لكو سوخي موي خيو خيو يبري ينغ حمانتني موغي خيو تي دين الاسلام نيو جيسون ني دي نن اند بين سيري دي فيديو يو حمانتني متصوفوني ين تي سيني عقيدة اك ين تي سيني جف ñu indil leen ñeel amatu naasi ay dalail maanaam ay tegtal yuy wane ne li ñu nekk ñoom lu wér la fekk du doon dàggasante du ñu tudd kenn du ñu gaaral kenn ci loolu ñi nga xamante ni ñoom ay borom xam-xam lañ danañ leen tuddal euh, delluwaay yi ñuy dellu pour mun a gisaat yu ci bëri duñ ko jang ci arab dañ koy firi rek ñeel amatu naasi ñu dem tey point bi ñu bëgg a moy point tawassul tawassul mooy lan di manga ñaan ci barke diw wala nga jokku ci diw pour jege wo yalla tabaraka wa taala ñaan ci barke nangam yalla maa ngi lay ñaan ci barke nangam ci barke diw lolu lan mooy cosaanam ci lislaam awalan alquran mo ñu njëkk tuddal baatu tawassul ci ay barab yu bari naka non hadith yi ñuy indi tamit hadith yu bari la waye bu ci nekk dañ ci tan benn bo xamanteni bu wér la ñu sukkandi koko yi dess ñeel ñi nga xamne ay borom xam-xam lay yalla dafa wax ci alquran يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة yàlla ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen sàkku jokkandiku ci moom alwasilatu tawassaltu ila shay'in li shay'in loolu moom mooy jokkandiku naa ci dara pour dara boo xoolee julli woor yooyu yëpp ay jokkandiku waaye la yooyu def pour jege woo yàlla ndax bii bi mooy jege yàlla tabaraka wa taala kon yàlla xamal nañu ci alquran ne wasila lu mun a nekk la yenent bi ñëw firi ñu ko ci ay anam yu bëri yàlla tagg na ñi nga xamante ni te bu ñuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ci bunt ak wasila mooy fi yàlla di waxee ne alladina yad'uuna wa yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu ñi nga xamante ni bu ñuy ñaan dañuy sàkku ci yàlla wasila léegi nag dafa am ay facteurs yu bëri yoo xamante ni dafa taxaw nekk wasila ñeel jullit bi jëm ci yàlla tabaaraka wa bi ci njëkk mooy wa ut wasiila ci yàlla tabaaraka wa taala moo xam ci jëmmam wala ci ay meloom yàlla wax na ci alquran walillahi al asmaau lxusna fadcuuhu biha mu ne man yàlla am na ay tur yu sel yu rafet bu ngeen di ñaan na ngeen ma ñaanee ci tur yooyu mooy lan yàlla ci sa yërmaande yàlla ci sa màgg yàlla ci sa mbaax yàlla ci sa nàngam maa ngi lay ñaan nga may ma nàngam ci melo yàlla bobu di turam ci nga def tawassul pour yàlla nangul la wala nga ni allahumma bi zatikal aliyya yàlla ma ngi def tawassul ci sa jëm ju kawe gi yépp ba tey yaa ngi def tawassul ci yàlla kon lool am nañ ci alquran bu ko saxal naka non tamit def tawassul ci ay jëf yu bax lu alquran saxal la lu hadith saxal la doyna ci aya alquran fi yàlla di waxee rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidin dafa ne yow yàlla gëm nañ li nga wàcc suñu muy téere yi topp nañ yenent yi ngir loolu yàlla nag ñu boole ci ñi nga xamante ni ay martyr lañ ay shuhadaa lañ kon gëm gi mu gëm ak topp gi mu topp yenent yi ci la def tawassul pour egg ci yàlla nangul ko kon loolu noonu ci lañuy ñuy déggee ne yàlla julli gii ma julli yàlla oor gi ma oor yàlla saraxe gii ma saraxe maa ngi lay ñaan ci barkeem ñaan na nga ma nangul yàlla ci julli gii ma julli yàlla na nga ma defal nangam loolu moom mooy tawassul ci bil amali saaliha ci jëf yu sell bëri na ay ahadis yu bëri yu ci ñëw waaye dañuy tënk rek beneen bi mooy nga def tawassul ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo xam moo ngi dund wala dafa génn àdduna bu fekkee ci xaal bi muy dundee yàlla moo ñu jàngal ci alquran mu ne walaw annahum id zalamuu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru allaha wastaghfara lahum ar rasul فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما yàlla ne gaa yi de ba ñu tooñee seen bopp buñ ñëwoon ci yow yeneen bi sallallahu alayhi ñu jéggalu yàlla nga jéggalu leen yàlla kon dinañ fekk ne yàlla ku baax la kuy jéggale la gis nga ñu bari dañuy taxaw ci wastaghfara lahum rasul ñu ne ah waaw pour nga dem ci sa mbokk mu ñaanal la kay loolu lu dagal la waaye am na beneen aaya boo xam ne moom mooy génne لولو تي غاي يالا دا فا القران موني وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يالا نمان دوما لين بوغل فيك يانغي تي نيوم واخول فيك يانغي لين دي نيانال فيك يانغي تي نيوم دوما لين بوغل كون نيو بي دوت نيو تانك كسي waye ñew bi moy nangul yenen tabi sallallahu alayhi wasallam yalla ne duma len jéggal fi ak ñogi jéggal kon yoy yep ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moo ngi dund mooy wa anta fihim donte ne alquran wax na ne waalamu anna fiikum rasulallah xam leen ne yenentu baa ngi ci yéen naka noonu yeneen yuy tegtal yu bëri ne yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam xaadir bokk na ci nee na dañ koy gaaral chaque guddi aljuma ak chaque guddi lundi jëfu xeetam lu ci baax mu gërëm eggale ci yàlla lu ci baaxul tamit mu sàkku njéggal ñeel leen saxaabi yi bu ñuy wax Usmaan ibnu Xanif dafa nettali ben way bo xamantene silma xalawon wala dafa amoon jàngoroy bët mu ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li ay dalil la ci tektale ne nit ki mën na jokk ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dund ñëwaguñu ci bu génne aduna mu ne waji ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yenent bi ñaanal ma yàlla mu may ma afé ci sama beuti yi bi ne ko bu la nexé ma ñaanal la bu la nexé tamit nga muñ mo gën ci yow koku ne ko ñaanal ma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga yeesalaat njàpp nga julli ñaari rakaa bo ñewé nga wax ñaan bi may wax ñaan bi ku nekk na ko jàpp ndax ñaan bu am solo la te waji bam ko ñaané ci saasi la ko yàlla safaral ba tamit yenen tabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waxal allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahma ya muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi haajati haadihi li tuqdaa li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waa ji yow neel yàlla maa ngi lay ñaan te maa ngi jublu ci sa yenent bi di muhammad yenent ab yërmande mu ne yow muhammad yenent bi mooy jàngale xadis bi ki nga xamante ni moom la yàlla wax ne moom la ñuy roy moom moo jàngale ñaan bi mu ne yenent bi ne kooku neel yaa muhammad yow yenent bi maa ngi jublu ci yow jëm ci yàlla pour yàlla nangul ma sama yittewoo bi sama soxla bii nii ci yow waa ji ba mu waxee rek ñaan boobu rek yàlla saafara ay bëtam hadis bii nii ahmad génne na naka noonu tamit hakim ak tirmisi ñoom génne nañu hadis boobu hatta albani bi nga xam ne moom moo gën a sévère ci mbir yu mel nii wax na ne hadis bii nii sanad bi mooy chaîne de transmission bi dafa wér kon hadis bu wér la bu amul benn uute bu fekkee nag ginnaaw ba mu génne àdduna wala sax nañu wax njëkk yenentu sallallahu alayhi wasallam di ñëw ci àdduna ndax yenentu bi mu ñëw ci àdduna dañ doon def tawassul ci moom boo demee ci tafsiru ibnu kasir boroom xam-xam bi ñuy wax qurtubi indi na fa wax boo xamante ne abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma moom moo ko wax ci firi boo xamante ni mu ngi doon firi aaya bi yàlla tabaraka wa taala di wax naan walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima maahum wa kaanu min qablu yastaftixuuna ala alladina kafaru mu koy firi mu ne yahuud yi yahuudu waa xaybar dañ doon xeex ak benn ngir boo xam ne ñu ngi leen tuddee Ghatfan ñuy xeex ak ñoom ay yoon yu bari waa Ghatfan di noot yahudi yahudi yahud nag ñu pare pour ñaan yàlla tabaraka wa taala ba ñuy ñaan lan la ñu wax dañoo ne allahumma inna nasaluka bi xaqi nabiyi al ummiyi alladi waadtana bi ixraajihi fi axiri zaman illa nasartana alayhim mu ne yow yàlla ñoo ngi lay ñaan di def tawassul maanaam di jokku ci yenent bi nga xamanteni yow yaa ñu dig dana ñëw ci mujjantal jamono annabiyul ummi moy ki nga xamanteni c'est un analphabet sallallahu alayhi wa sallam ñii ni ni ban ko defé yàlla nangul len ñu am note ci kaw wa Ghatafan yahudi ni dañ doon def tawassul njëkk yenent bi di feñ ci kaw suuf naka non tamit yenent yàlla adam alayhi salam ñewna ci hadith bo xamne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko solo Umar wax ñu mu ne ba nga xamanteni yenent yàlla adama def na bakkat bi mu defo bako yàlla téré mu lek ñam bobu nonu nga xamne yàlla daf ko ne duggal ci aljana bi yak sa soxna na ngeen lek lu len neex waye bu leen jege garab gi ni adama ginnaw bu mu lekke garab gi ba pare Seydina Omar mu ñi netali mu ne yenent yàlla adama dafa ne yàlla ma ngi lay ñaan ci jaay Muhammad na nga ma jéggal ci jaay Muhammad yàlla tabaraka wa taala ànd xam xam bi nga xamne ne wu dara mu laaj ko ne ko yow aadama fan nga xame muhammad te man sàkk guma ko mu ne ko waw yow yàlla ba nga ma sakke ci say loxo ëf ci man sa ruh dama siggi xol ci kaw arsh ma ngi gis ñu fa bind la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ma xamne ne tur boo jël laaf ko ci sa tur bi yeb tur bu màgg motax ma jéggalu ci mom yàlla ne ko wax nga deug moom laa gën a bëgg ci sama jaam yi na nga ma jéggaloo ci moom yàlla jox ndigal ne ko jéggaloo ma ci moom te ñëpp xam nañ ne ci usul al amru lil mutlaq ndigal day ëmpale dara du ko tënk lu dul texte bu ñëw tënk ko mu ne na nga ma ñaan ci barkeem ci xàqam te xamal ne jéggal naa la yow aadama alayhi salaam aadama def na tawassul ci yenent bi njëkk sax yenent bi sallallahu alayhi di gane ci kaw suuf yàlla teg ci wax bu yéeme mu ne aadama te xamal ne bu dut woon yenent bi man du ma la sàkk kon suufiyanke yi li ñuy wax ne dañoo sàkk mbindee fii ngir yenent bi maanaa bi loolu rek la yenent bi moo tax nit ñi sàkk parce que yàlla moo wax ci xadis bi bu dut woon moom du ma la sàkk xadis bii nii ku dem ci tabraani da nga ko fekk naka noonu xaakim dafa ne xadis bii nii xadisun saxiixul isnaad maanaam chaîne de transmission bi ba tey bu wér la kon xadis boo xamante ne bu wér la suufiyanke yi di ci sukkandiku pour ñaan ci xàq yenent bi te bu fekkee xàq yenent bi la njëkk muy ñëw bu ñëwee bu jugee fii yépp a yem ci mbir moomu noonu waaye lan mooy dalilu def tawassul ci yenent sula sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba mu génnee àdduna ibnu abi shayba radiyallahu anhu dafa nettali benn xadis boo xamante ni ñu ko jëlee ci ku ñuy wax maaliku daar te xadis bi nii ku ñuy wax xaafiz ibnul xajar wéral na xadis bi naka noonu ibnu kathir wéral na mu wax ne hada xadisun saxiix maanaam xadis bu wér la mu ne xaakimu daar boobu noonu wala maaliku daar nekkoon bëkk néegu yeneen Seydina Omar ci jamonoy Seydina Omar ginnaaw yenentu bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañoo amoon bekkoor moom maaliku daar boobu mu ne dafa am benn saxaabi boo xam ne yenn ci riwaaya nee nañ Bilal ibnu Xaaris la dafa dem ci xabru yenentu bi sallallahu alayhi wasallam moom maaliku daar dafa ne dafa am benn waay dafa dem ci qabru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mu ne yow yenent bi nàndalal sa xet ñoo hal xal halako nàndalal sa xet ñoo halako mu ne waji tëdd nelaw gént dikkel ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko demal ci Umar nga ne ko maangi koy nuyu te na nga ko wax ne yàlla dina len nàndal waye maangi koy dénk al kis hadith bobu non hadith sahih la te kii nii ginnaaw ba fi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee la def tawassul ci yenent bi non seulement toogul këram def tawassul mais dafa dem ba ci xabru yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy wane ne tam dem ci xabru yenent bi def fa tawassul ba tey lu wér la ci xadis bi nga xamante ni xaafid ibn xajar al asqalaani wéral na ko ibnu kasir ba tey tamit wax nañ ne xadis bu wér la xadis yi nii dëggal nañ tawassul am na nan lañ koy defee ci yàlla nan lañ koy defee ci yenent bi ba yenent bi du dund ak ba mu fi jógee léegi tawassul ci keneen ku dut yenent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne dañoo njort ci moom mbaax lu wér la wala wérut am na ay dalil wala amul dalil ku ko deful itam am nga plein droit ñàkk koo def waaye ñàkk kaa wéral moom xel du ko nangu ginnaaw boroom xam-xam yu toll nii ñi ñu nar a tudd wéral nañ jokk ci awliyaa saalihin yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxte ñaan bu am solo la ngal la sax na ko ñëpp di jàng ndax résultat ñaan bi rëy gi ينتمي بس الله عليه وسلم دفع واحد حديث بوحة منتني أبي سعيد الخضري رضي الله عنه الصحابي الجليل موك رواية من ينتمي بس الله عليه وسلم دفني من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جواب بدوغو نيو صلى الله عليه وسلم وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ حتى يفرغ من صلاته حديث بي ابن حجر الأسقلاني وسلم حافظ العراقي وسلم Hafizul baghwi solo nako ak ñeneen ci ay ruwatul hadis yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax hadis bi ñuy wax ne abi saïd alxudri moo ñu ko nettali yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu ne kep ku genn kërëm jëm jakk mu ne nga wax ne yalla maa ngi lay ñaan ci jaay ñi lay ñaan maa ngi lay ñaan ci jaay ñi lay ñaan manam sa jaam yi nga gërëm yi nga xamanteni ñoo ngi lay ñaan mu ne lay ñaan ci jaay ñi lay ñaan naka noonu tamit maa ngi lay ñaan ci daraja ak ci barke dox gii may dox jëm ci yow ndax man ma di dox ci lu xaraam génnuma di dox ngir am tur génnuma di dox ngir ngistal waaye dama génn rek ngir ragal sa mer ak sàkku sa ngërmaande maa ngi lay ñaan nga musal ma ci safara nga jéggal ma samay bàkkaar ndax amul kuy jéggale ku dut yow yenent bi sallallahu wasallam mu ne képp ku wax loolu yàlla dina la tàggatal juróom ñaar fukki junney malaaka ñu lay jéggalul mu tek ci mu ne yalla dana jublu ci yow ba ngay pare sa julli kon malaaka yi mom du wut ne dañ lay jéggalul ba nga pare sa julli rek ñu noppi déedéet foofu yenent bi daf kaa boyal dafa ne rek yalla dana la tagatal juróom ñaar fukki junniy malaaka soixante ange ñu lay yalla waye yalla dana jublu ci yow manam jublu khas, ba keroog ngay pare sa julli kini dafa ñaan yalla ci ñi ñaan kon kay mën na ñaan yàlla tamit ci barke kii parce que kii day ñaan ci yàlla ma am njort na kii nii jaamu yàlla la bu yàlla gërëmloo loo jaamu yàlla la bu bëgg yàlla la jaamu yàlla la buy jàng alquran jaamu yàlla la buy tagg yenent la jaamu yàlla la bu déggal ay waajuram la jaamu yàlla la buy fanaanee di ñaan yàlla guddi ma ñaan yàlla ci barkeem hadis bii nii saxal na ko ak yeneen hadis yu bëri waaye li ñu indi rek dañ ko indi juste pour wone ne suufiyanke yi lu bari li ñuy def di def tawassul ci seen sëriñ si di def tawassul ci gaa yu baax yi di def tawassul ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lii alquran ak ay ahadis yu wér ñoo ko saxal ku ko def am nga lay ku ko deful itam du wut waajib du wut farata boo xam ne da nga kaa war a def waaye man duub la shay'un mustahab lu yàlla gërëm loolu lu yàlla bëgg la ànd ak ne li ñu wax rek am na ay adilla ay ahadis yu bëri yuy tegtal loolu comme ni Seydina Omar doon ñaanee ci barke Abdullah ibn Abbas ba ñu amee bekkoon ak yeneen xadis yu bari yoo xam ne dañuy bañ vidéo bi gudd lool moo tax ñu yemandi ci adilla yi ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal fatko defal ñu tawfiq may ñu xam-xam may ñu ragal yàlla may ñu tamit honnêteté intellectuelle ba par parloo duñu tax a weddi loo xam ne dëgg la par parloo duñu tax a saxal tamit loo xamante ne ay neen la yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdu awwalu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min xiin ila xiin إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته